lay way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna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 di jëwrinu euh, sëñ Modou Yaali di jëwrinu liggéey bi yi nga xam ne moom la ñu teewee nii muy waa ahlu Atayal Bamba kanaa tur wi moom fukuraase na lool ñi koy defit di ay murit saarix yoo xam ne boo leen xoolee rek dangay ngay bëgg ñu xel la ci ataaya ji ah sëñ Modou Yaali ñoo Tawfekh Production mu ngi lay nuyu bëgg nga sànni ay kàddu ci liggéey bi ana jubluwaay yi ñu ngi leen di fay asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di ziyaare bu baax kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di rafetlu liggéey bi di wax ne liggéey bi moom liggéey ahlu ataayal bamba la bépp euh, xew-xew boo xamante ne nii Serigne Touba woote na ko moo xam muy Masalikul Jinaan moo xam muy Touba ci màggal yi fay xew ak poroxaan gi di màggaluk soxna jaara euh, kuréel gi ñëw fi euh, di fi amal séddaleem ataaya ak séddaleem beñe ak ay lu mel ne ay mburu waaye ataaya ji di loo xamante ne nii moom mooy li nga xam ne moom lañu gën a farataal dañuy xëy di ko séddale ba daanaka vingt heures maanaam di ci bégal murit sëñ Bamba yi. kuréel gi nekk gi kuréel la nekk. Ah, Touba ci fan. Touba 28 la nekk. masalan ñi nga xam ne dañ koy seetaan di ko gis te xam nga murid yi moom dañoo am pasif ñaareel bu gisee taxawaay yu mel nii am na ñoo xam ne fañ toog dañ ciy bëgg bokk tey ku ci bëggoon a bokk ana ci yan yoon lay jaar ba mën a si ku ci bëggoon a bokk moom Dakar naa da ñëw ci suñu jëm yi mën naa cee joxe sama numéro téléphone di 77 512 12 ñu gën maa xam ci Baye Modou Yaali maanaam euh, di liggéey boo xamante ni daal liggéey bu simple lañ ko def. maanaam dëgg la nag moom taalibe maanaam fu ñu toll rek ñu ngi créer loo xam ne dafay taaral yoonu murit. waaye maanaam création bi ana nu mu leen dikkee am na lii lii day loolu lu xoromu te neex te am. dafa neex parce que dañoo seetlu ne nit ñi café la ñuy séddale. café gi nit ñi danañ koy naan léeg ba toll ci diggante boo xamante nii daanaka léeg-léeg pour nga jox leen ko ñu naan ko dafay xaw a jafe ñu gis ne ataaya ji nit ñi moom bëgg nañ ko dinañ koy bëgg di faral di naan tout le temps mhm. te duñu gis ku leen koy jox loolu nag kon di loo wax initiative boo xamante ne ñun biñ ci xalaatee ñu ne daal ñun ataaya lañ koy def comme café gi moom euh, café gi bari na def ko ataaya waaye ataaya ji nag ñu koy defee ci anam boo xam ne yi tamit anam bu macha allah lay doon baax bi fexe ba utal ko tàngalu jinjeer beeg yëpp ko ci macha allah waaye dañuy gis ne murit ko ñam li wax mooy lii nu ngeen ko defee nangam nangam ndax daal dafay am a neex sax mooy yéen a murite waaw waaw waaw set gi d'ailleurs xam nga defal dara Sëriñ Tuubaa it waaj ba jekk it solo dafa am solo ndax adduna euh, moom dafa dépassé foo xamante ne nii nit ki lu muy def du ci xalaat maanaam looy def da nga ciy xalaat defee ko ci anam bi gën a te surtout léegi comme jamono dafa doy waar nit ñi ku leen di jox lu ñuy dugal seen biir yi war nga koo seet seetantal ko ba boo leen ko joxee ñu sawar koo jël. jërëjëf sa kàddu yu mujj. macha allah sant Serigne Touba sant Soxna Jaara di ñaan yàlla suñu borom bépp murit bu fi ñëw lépp bépp soxla boo fi indi suñu borom saafara ko suñu borom jàppale jullit ñi ba wopp jooju nga xamante ne nii dugg na ci jamono mu teggil ñu ko ñun ñi nga xamante ne ñu ñun ñoo ñooy waa kër Serigne Touba ak waa kër yonent bi jërë ngeen jëf ñoo ngi sant bu baax jërëjëf sëñ Mor Laji Saga lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara soxna jaara